saa su ngeen di wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Daaru Njaay TV aouzu billahi rajim bismillahi rahim wa sallallahu ala sayidina wa nabina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa ashabihi ajmain barke xaadim rasul xam naa ci tënk rek comme waxtu yi leemu la ñu yëkkati nodd gi xalaat sëñ Cheikh mi nag gannaaw bi ñu sante sëriñ bi e, moom la sant ndax man lam yaskuri naasa laa yaskuri laa ku santul nit doo sant yàlla te mooy ki nga xamante ne biñ ne càpp yëkkati li nga xamante ne mooy lii nu bëgg a yëkkati moom mooy ki nu ci dooleel ba noppi ñemeeloo nu ci ba noppi gungeenu gisuñu woon kenn moom rek la gisoon mën naa nekk mën naa nekk mën naa nekk du la ragaloo mukk ba noppee nag di la ànd ak yow di la orienté ba tey jii tey résultat yi ñu am ko waaye booba école bi amagul benn initiative ndax biñ tàmbali ci xel yi rek moom la ci waxtaanam kon lañ koy sant mais dañ koy ñaanal yàlla ñaanal ko yàgg fii ci liggéey bi mu sumb ci xam-xam ba li ñu wax ci wàllu administration mën na jeexal na waaye ci dundu jullit mooy wax but rabbaka ataayatikal yaqin ñu ñaan su borom may ko mu gudd fan ànd ak wér ba liggéey suñu Tuubaa liggéey boo xam ne sëriñ bi dana ko gërëm am dana ko gërëm moom sëriñ Darou Assane su ko defee ñu sant ñi nga xamante ne ñoom la ñuy sant bu baax ci taxawaay mooy professeur yi jiital ci àll yi waaye teg ci sëñ Maam Mor mi ak ñoom ñi nga xamante ne équipe la boo xamante ne saa su nekk kenn ku ci nekk sa taxawaay dafa mat sëkk man daanaka du ma jaar ci bi dangay ñëw rek seet waaye amuñ ci li ñu ci contrôler lépp la ñuy dox doxee lu xëy ca doxee lu mat sëkk loolu nag li muy tekki mooy da ngeen di jaayanteeg sëñ Tuubaa contrat bi ngay am contrat sëñ Tuubaa ndax ñun sëñ Tuubaa la ñu amal affaire ndax sëñ bi ci moom moo woote jihaad jihaad yi mu woote nag jihaad xam-xam la moo tax képp ku di murit di wuy si ci liggéeyam bi baa nga ñëw ci dëkkam bi ba noppi di fi tëdd ak yeewoo te liggéeyoo ci xam bu doon jihaati fett ak jihaati jeesi tamit ngay des ca gannaaw kon jaar ji mu woote jihaati xam-xam jooju mooy inni ujaaidu bil ulumi wa bit tuqa habdan xadiman wal muhayminu shaidu jihaat jooju képp ku di murit war nga fexe ba yëmb ci xam waaye même boo ko munta créer fu ko créer war nga fexe ba sa njaboot dugg fa waaye nga fexe ba di leen jaajëfal ndax loolu mooy yaa ngi participer ci jiwaat yi jihaat jooju nag jihaat jihaat la soxna yii ñu bokkal ci kër gi muy ñii ñu bokkal di jaamu yàlla ci kër gi ñoom am nañ ci participation ñoo ci soññ bu baax xamal na leen liggéey bi ñuy liggéeyal Sëñ Tuubaa boo ëlgatee na saxaaba yi doon ànd ak jigéen ñi di joxe ndox ca jam ca xeer ya yéen tamit liggéey boobu nu ngeen ànd noonu ndax yéenay toggal dong yi yéenay fóotal dong yi ba noppi école bi kenn ku ci nekk yaa ngi am taxaw yu ma sëkk ndax kenn ku ci nekk sa njaboot te yaa ngi koy soññi waxtu wu nekk muy jàng kon loolu tamit ñu ngi leen ciy sant yéen soxna yi gannaaw bi ñu santee suñu kilifa muy Baye Daam mi nga xamante nag lépp mooma ak sëñ Baye Fallou Ndiaye ndax ñoom dañ ma ji ci jiital ne ma say xalaat doy na doxal te dem fuñ ci war a féete dañ ca féete amuñu luñ lay ci tëgg amuñu def ndax man na ma am say xalaat rek waaye xalaat yi boo ko amee ko ci taxaw tamit da ngay am euh, issue yi doo mën a jàll waaye noonu la ñuy sant tamit Cheikh Mbacke mi nga xam tamit biñ ñuy taxawal lii daa wax ne man Cheikh doom la ci man joxee jëne si ne du ma xam ayibam du ma xam sikkam ndax man lii ma bëgg ci lu baax ku ma ci jàppale rek kooku suñu xamatu say say la sëñ mun Abdou Khadre daa wax ne jàkka ji su ma ne salaamaaleykum ku ma geesoo ku ma gis si xam ma sa ayib noonu la Cheikh Mbacke Mbacke maam ba penn bii bi fii la jànge fii lañ dale baa ñu jàngal leen ci programme bi ba yóbbu leen fii ñu yóbbu ba mujj innovation li am amélioration li am ba tey waaye ñoom yoon boobu la ñu jaar tolloo ba tey ci suñuy xalaat ak suñu jàppale kilifa yi foofu la jaar ñoom itam bi mu tàmbalee ba yëngu ci xam-xam mi ci am a doxal noonu dañuy toog rek di leen jóge ci loolu bu ko defee ñu euh, yi ak xamante ne am na xale yoo xam ne feneen lañ mokkal xwaat seen i wayjur dëkk ba Saloum ñii seen dëkk ba Ziguinchor xale ci daara ji yooyu di fi jàngi alxuraan di fi jàngi xam-xam ba tey jii am na ñoo xam ne am mokkal nañ alxuraan bind nañ seen alxuraan ba téere ba ba bind nañ li nga xam ne ci am na seen CFA ba tey jii ngi jëm sixième cinquième loolu tamit di sant waajur yooyu ak mboolem fu nit nekk ci na ko mu ne da boole ci tool Serigne Cheikh yi boole ko ci daara Serigne Cheikh Mariam yi kon loolu tamit bokk na li nga xam ne xëy na moom may barke barab bi li fi génn ci ay shahada mat na 70 bu cëriñ bokkul mat na tamit BFM 40 kon ci tënk nodd gi jóg na ñu sant ba tey jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu aouzu billahi min asheytaani rajim alamin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbooloo mi nga xam ne ñoom lañu fekk ci jotaay bi noo ngi yëkkati sunu kàddu di nuyoo nuyoo bi dañ koy tàmbalee ci tout tànk yi nga xam ne nii ñoo nekk ci sunu kanam ci ndeyjoor di ay soxna ak ci càmmooñ di ay xale yu góor nuyo bobu ni diko ko ci wajur yi nga xamne ni ñoo nga ne ci suñu kanam ñu di leen seen nga ni ñoy wajuru xale yi nga xamne ñoo daje fi ba tay ñu diko lawal ba aggalé ko ci ñi nga xamne ni ñoo tew ci jotay bi tay saytu xale yi di leen xamal di leen yar niñ ko waxe jotaay bi nga xam ne fekk nañ ko leen fi jot a dégg leen fi jot a gis te daan ko teewe ci at yi nu weesu lu sedd xol la lu dal xel la lu am yaakaar la yooyu yëpp daje na ci ndax bu nu seetee ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci suñu kanam góor ak jigéen te nga xam ne nii mooy yaakaari ëllëg ak liñ fi jot a dégg ci mboolem fànni xam-xam yi mooy tax ba nu ne sunu xol sedd na ci sunu xel dal na ci sunu yaakaar itam mi ngi ci yokk bu baax a baax xam-xam. mooy ndey lépp loo xam ne nii day tabax nit ngir ëllëg fële mu jëm fekki war suñu borom di ko tabax fii mu nekk ci kaw suuf ngir mën a waajal boppam ngir tax ñu wàcce ko fi euh, jotaay bi duñ ci sori waaye bu fekkee dañuy wax xam-xam te ñu gis ne laay ji nga xamné ni mo moo wàcc ci alquran karim moy iqra bismi rabbikal allazi khalaq ndax sayidna jibril bi mu fekk yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci khar xira li ko njëkk wax moy iqra iqra bismi rabbikal allazi khalaq fofu nonu lu mat baye xel tuuti la njàng aduna bépp koy def bu 7 milliards lañ man nañ ñëpp ay état yo xamni gën xam nu mu kenn ku ci nekk ya nga organiser système éducatif di jangalé waaye nak ñen ñoo ci jangalé di bàyyi xel yalla lool moy li nga xamni momata moom xel yonent bi lim jëk ci moy iqra bismi rabbi kon moy jangal te bàyyi xel yalla loolu nak mom la sunna ñew muy alquranul karim mom la sunna ñew di ko firi di ko yaatal ci tënk yitam bi nga xamee ne nii borom barab bii Cheikhuna Ahmadul Xadim nga xam ne nii moo doon yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci kaw suuf ci xar bu Afriqiya ci sowu jant moom itam yittewoo jàng ak yar wax nañ ko fi liñ ci wax lépp daanaka jëruñu ci dellusiwaat ndax lu leer la dañuy jéem a tënk rek ngir gën a soññu xale yi yéen ñi ngeen xamne ni yéen ñi déglu ni ngeen gëna gor gorlu ci xam-xam ak sàkk ko ngeen wajur yi tam ñu dégg ñu baax a baax xam ne li nga xamne ni nii moo nu indi ñun ñepp ci keppaaru cheikhul khadim mooy doylo ko yaakar ko kon yoon yi mu ñu xalal ne jaar leen fi su ngeen fi jaaré da ngeen war nañ ko baye xel bu baax baax te moy jang ak yar ñi fi yëkkati kàddu yëpp wax nañ ko. fii nag ci wàllu jàng ak yar liñ fi gis te xale yi wane ko day daal di nuy wane ndekete kat te wax nañ ko ba tey maanaam loolu yëpp yéen ñi fi jël kàddu yépp wax ngeen ko maanaam li nga xam ne nii moo nuy may li nu soxla li nga xam ne nii moo nuy àggale ci dëkk ba nu jëm ci yoon wi gën a gàtt ndax yaakaar naa ne borom xam-xam mathématiciens yi dañuy wax ne yoon wi gën a gàtt ci diggante ñaari tomb mooy yoon wu jub siraatul mustaqim mën nga caa àgg ci yoon yu bëree bëri waaye yoon wi gën a jub mooy siraatul mustaqim moom wenn yoon lay doon wax ni nii li tàmbalee ci tomb bi jëm ca tàmb bee day day day def coowu dem kon dafa mel ni fii nii ci loolu lañ cege jàng alxuraanul karim mokkal ko wala nga miin ko wala sax nga bind ko. boo ci jógee ñu ubbil la école boo xam ne nii dalay jàngal mbooleem xam-xami diine yi ni ko Seexul Xadim sakkoo dégg nga ubbil la beneen école benn école boobu nga xam ne nii ba tey boo jógee ci loolu moom itam moo lay jàngal xam-xam yi nga xam ne nii moo lay mën a tax li tax suñu borom andil la ci suuf nga mën koo taxawal te mooy dundal kaw suuf jaamu yàlla fii nii leen fi gis nii moom la jàngal la arab arab mooy lakk wi nga xam ne moo nuy mën a may nu mën a xam alquranul karim xam sunna yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam xam xasaay di sëriñ Tuubaa yi ndax sëriñ Tuubaa li mbind lépp ci arab la ko bind kon ki lay jàngal arab ubbil na la buntub lépp la war a xam ci fànn googu nga xam ko di la jàngal anglais xale yi def nañ fii discours anglais ñu dégg sëñ euh, kii wax na ko sànq nii sëñ ma pend wax na ko sànq anglais espagnol français mooy lang yi nga xam ne nii bépp xam-xam boo xam ne nii mooy xam àdduna aju ci science ak technologie te mënuñu koo ñàkk kooku itam boo ko xasee man kon xam-xam yooyu dalay jàppandi wax na ko sànq boo duggee ci internet am na yoo xam ne nii bu fekkee ne bindoo ko ci anglais wala bindoo ko ci français xaj na doo ca doo ca doo ca doo ca ba tey ba mën ko bind sax ci espagnol man li ñuy wax ci espagnol lii moom wax dëgg yàlla xaw ma dara loolu tubaarkàlla kon xale yi ñu ngi def euh, avance bu baax baax cib tënk daal euh, sëñ Mayib li ngeen di def fii nun noo koy rafetlu bu baax a baax di soññ xale yi nag ak waajur yi ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax ci xam-xam bi mel na ne euh, timis saa ngi dugg kon wax jooju daanaka dañ koy tëng foofu rek ñi nga xam ne itam ñoo yor xale ñu di leen jaajëfal bu baax a baax ndax fii li gis barki démb samedi yi ñu génn rek maa ngi yenn université ci benn atelier boo xam ne nii université Cheikh Amadou dañuy xool ba xam xale yi nga xam nii ñoo jàngee ci école. Euh, yi nga xamne ñoo nekk ci biir Touba té nga xamne ni boko xolé ñom seen jang mepp lu ci ëpp dégg nga maanaam lu ñuy woowee arabo islamique lañu jangé nan la mëna fexé ba defal leen ay cycle préparatoire pour ñu mëna dugg ci manam faculté scientifique technique yi nga xamne ni dégg nga moo nekk ci biir euh, université bi ci lan yendu barki demb def nañ ay commission technique yi nga xamne ñom lañu euh, sax ñom ñu saytu lolu nongi ci hanya bala yàgg incha allah du ñàkk lu ci genn kon dafa melni yeen yéen nga xamni ñu ngi ay wajal ñi nga xamni ñu ngi doon jang ay ati at ba yor seeni baccalauréat tay te am ay jafé jafé ci tuku manam ci eh, ki filière scientifique yi yéen loola bokk ndax réglé ngeen ko té dafa fi ne dañu wax ne danañ ko def waye nak nañ xol ba xam nu ñuy réglé loolu bobu fek ay at ñu soxla manam manam cycle préparatoire bobu yeen yéen kon maanaam yéen eh, yen nga ci kanam lu jitu manam jitu ngeen xalaat yi lu jitu ci aksi fofu kon lolu am solo lo xam seigne may ak yéen yi nga xam ne nga jang wax deug yalla manam sant rek la ñëw la jërë ngeen jëf ma ngi jéggulu wax sama xol dafa sét rek ma wax naa li wax ëpp na waaye kon jere ngeen jëf yalla na leen yalla barkel yalla na leen yalla barkel barkel liggey bi barkel leen yéen seen bop yéen xale yi nga xam ne yéenay waajal ren maanaam euh, examen CFEE wala BFM góorgóorlu leen ay nit rek a koy am bu ngeen takkoo léegi léegi góorlu yéen kenn ku ci nekk jàpp ne kat man li tax sama école am 100 pour cent ci man samay loxo la war a jógee loolu kon boo ko defee rek moom boo amul 100 it di nga am 90 95 waaw loolu loolu kon jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. amiin. الحمد لله البديع الأكرم saa su ngeen ni wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu laar jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu Serigne daaru Assane Ndiaye gaaw leen gaaw ngeen abonné si daaru Ndiaye TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Darou Ndiaye TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Darou Ndiaye